xam ni dañuy yokk ci seen bopp yi ak dañuy funkeew yoo xam ne dañuy solu mel ni ñu rafle dañuy solu mel ni ñu rafle maanaam ñoo xam solu joxe jël seen ay awra day am ngeen ni jigéen awraam lépp lu xar kanamam la ak dénk lu dul loolu awra la ci jigéen loolu rek moo war a feeñ suñu jigéen ñi lan la ñu solu moo ñëpp a ñëw feebar ñoom ñëpp seen bopp yi sañse woon ci nekk parce que bu ñu seen ci la ñuy bi moom la ñuy yi téléfilm yi dem nañ ba presque pornographie déguisé la ñu góor ak ci Sénégal yi tëdd ci lal sangu presque di ñaaloo ak góor ay Sénégalais yi ay mag nekk fii ay mag yi diine déggoo kenn ku ci wax kenn waxu ci fii la toll والله لي بون كو في جيليول بون كو في جيليول السنغال دي ديفار نانيو خالال بروغرام نانيو نيه نانيو وخ سوليسيون سي نيه بن سوليسيون مو ام باي سوليسيون بي بروغرام خاصنا نتر سوليسيون بي الله ترل دوكو يونتام ريك مو مانا جوبال دومو ادمي مولا مولا بابا نانيو توب سنة يونتي صلى الله عليه وسلم يلا لما جاء القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من عمل روي واي في رضي الله محمد يلا ليلا واحد أو من قال لي يدل مو لك نقول سبعين بو يوم بو يدل لا روي كلك نقول سبعين تخلف كلك بو جوجي جامو يلا لا جل سبب ndax lii may jëfi ci jaamu yàlla yonent yàlla bee ko jàngale bu dee boo ko jàngale naka la ko jëfee ma daal koy jëfee dem nguur ñu ne la ay yonent ñoo ko ñoo xam ni dañuy fekk ay néew nga leen noo koy ñaanee ku dee noo koy ñaanee يلا قبل يقول لهم هو مصادر للدفء ولو سمعوا ما استجابوا لكم يلا مهم مهم من دون مهم من القرآن لي لو يجل على فرنسا فلي يبقى كم دايما رب العالمين لقد ما هو مليون لب يجخ لب يبقى nit génn këram jël ndox sotti ci dugub nee na ndox xaw ma la jàpp ndox mooy la ñuy jàpp ndox bi doon labal gars yi lii suñu ndox ndox teg ñi leen li leen labal la la ndox ndox moo leen labal sinistrés yi génn seen yi lan moo leen génn seen yi taw mi moo ñëw ñu ndox fekk leen ko génn ndox jàmm rek lay andi ñoom ñu génn seen kër ndox ci soldaaru yàlla yi la bokk wa yàlla rek moo xam ay soldaaru nga gis koo xam ne buy def examen dañ naan ko boo génnee bul tourné

ñetti suratul falaq boobu bi falaq boobu bi naas ñett ñett wax bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wa la sama ba wasa bi alim ñett ñett awuzu bi kalimatillahi taammaati min sharri maa xalaq ñett ñett ay askar yu mu jàngale mu ne boo ko defee kenn du mën ci yow dara yow nga ne da ngaa bëgg Muhammad da ngaa gëm Muhammad li mu jàngale nga taxañ ba mu jeex waxuma sama taxañ da koo sax am te buñ la ne Muhammad nga ne joon ba daal di fay tas lu ñu wax njool màkka fekk li fi njool nga sa bëgg ci yoon sa sa sincère na mu doon dundee nga dundee noonu na mu nekkee woon ci kaw suuf lii la yàlla gërëm yonent bi sa sallam wax ak benn xadis mu ne sama xeet dinañ tàqali ci 73 parti 73 kuréel mu ne kuréel bu nekk 72 kuréel yi mu ne yeeyoon nañu safara ba mu des benn saxaaba yi laaj nga xam ne dañoo lekk ci li ma lekk man ak samay saxaaba ku nekk na xool ko ndax mu ngi dund comme saxaaba yi di nattukaay bi foofu ndax yow jullit ñi ngay dundee dafa méngoo di saxaaba yi ak Muhammad xam nga ci kuréel boobu ku nekk na yedd sa bopp ku nekk boo wéccee wallahi yaa ngi xam sa bopp xam nga li ngay jëflanteeg jigéen xam nga li ngay jëflanteeg film pornographe xam nga li ngay jëflanteeg musique xam nga li ngay jëflanteeg ci jël alalu jàmbur xam nga li ngay jëflanteeg ci fen jullit ñi di koy yëpp lislam daf leen ko tere tey moom la ñuy xëyee di ko bon Sénégal mënoo xëy bés te déggoo kaw corruption ci réew moo xam ne ñu nangoon lislam est-ce que loolu doon réew mu ñuy nangoon lislam ay l'islam moom moo war a béy mooy jullit ñi mu dëkk waru ñoo sàcc waru ñoo fen a ñoo nekk ay njaalookat seen i jigéen dañuy muuru musique di jolli ci mbedd mi alxuraan ngay dégg ak waxu yàlla lii ngay wax léeg-léeg sax mu mere la nga ñëw ci nit ne ko yàlla ak yonent mu ne yow da ngay jiigat yow da ngaa contre mag nangam te mag ñooñu yàlla ak yonent bi lañ yow mii wax da ngay jiigat yow yaa feebar ki normal mooy kiy tiitaloo alxuraan di jiitaloo yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc liñ doon fàttali sànq mooy feebar yi bari na Sénégal ay waay samay mbokk nañ leen dellu ci alquraanul karim nañ leen dellu ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko defulee bu ñu deewee di duñ ndaw yàggul mag yàggul wallahi lazim benn bés fa yàlla benn bés fa yàlla cinquante mille ans bu ñu dundoon cent ans mel ne ay ay lañu dund ko cent ans bu ko mel ne ay seconde la ñu dund fay dara suñu dund bi dara yàggu adduna bi daf ñoo nax wala taxurrannakumul hayaatud dunya yàlla mu adduna bi nax mu ne wamal hayaatud dunya illa mataaul gurur mu ne adduna bi ay xéewal yu éphémère xéewal yu gàtt ñoo fi nekk yoo xam ni suba suba da ngay dee bàyyi ko alal bi lu bari bari wallaahi da ngay dee bàyyi ko fi say njaboot ñoo say njaboot ëllëg ngay bàyyi ko ñeneen ñëw doon nga dugg ci bàmmeel ànd ak say jëf sa mbokk yi nga xam ne sax yaa leen dundal boo faatoo dañuy yàkkamti dem suuli la ñu commencé xalaat nag li ci bàyyi woon lan la ñu moom na fi ñoo xam ni xam nañ li may wax bu baax seen bàyyi ñu dem seen papa bu dee lan la ñu am ci alal wallaahi laa sax moo tax benn góor ma saa dégg njabootam toog seen ñoom seen biir toog di séddoo seen alalu bàyyi kañ seen bàyyi nga nekk kii naan sa papa génne àdduna man maay jël kii naan maay jël rek par paa bi dégg rek lan la paa bi def paa dem jaay mboolem ko dem loué benn appartement pour ku koy topp jàpp jàpp xam ne ñii bu ñu faatoo duñ ko ñaanal ñii alal lañ moo ñu yóbbee ci alal la jaam alal la ñuy jaam wallaahi li ñu amee alal baax ab ndaw ñëw na mokkal alal ñu andi ko ci man ki ko andi ci man li tax mu andi ko ci man daf ko dégg muy ko ci man ma laaj lan mooy sa problème mu ne moom dafa bëgg am alal te yoon bi gën a gaaw mu nekk franc-maçon mu ma sax gëpp na jaar ci ay loge mais yoon yoon ñu bëgg a jaarale day moom alal wax ma ay zone yoo xam ne dem na fa mu dugg ci ay loge maçon yi pour xaalis allahu akbar Sénégal fi la toll ma koy jàngale ay ay bu ma jàng la ñu jëriñ jigéen ñi ñu jàng alxuraan ma naan sàngara ñooy nekk ci boîte de nuit waaw ñun lu ñu tiitaroo alxuraan lan moo tax ñu tiitaroo alxuraan te jëfewuñ ko allahu akbar li ñaaw na wallahi li ñaaw na mbokk maa leen di woowaat ci li nga xam ne moom la ñu yàlla jox te moo nekk li nga xam ne moo ñu dundal istajibu lillahi wa rasul iza daakum lima yuhyikum wuy leen yàlla yonentam ci buñ leen di woo ci li nga xam ne moo leen di dundal moo leen di jox la vraie vie dund dëgg amal alal ñàkkal alal dund dëgg mooy nga ànd ak yàlla boo ànd ak yàlla gëm yàlla doyloo yàlla yaakaar yàlla kese di dimbali koo yàlla di ñaan yàlla kese wallahi sa dund lay nekk doonte yoroo xol day fekk doo gis borom alal ba ñeexoo fii borom alal yi ngeen di gis ñu ci bëri guddi ñu ngi ci jege yi guddi ñu ngi ci boîte de nuit di naan sàngara ñii ñu ngi ci trop borom alal bu bëri ñii ci ay sëriñ lañ dem ñu dox leen ay ndabar pour ñoom alal ñooñu jëriñoo ñee bu fekkoon alal tere nga la wala lu yàlla di sagalee nit ñi njabootam du ñu lekk Amar mos naa Amar bi mu duggee yonent bi daal yaramam daal di def ay màgg Omar daal di ndax lal bi mu tëddoon daa ay pajaas ay ay ñax xool leen koo xam ne da koo bëgg tànn ko mu gën ci nit mu ci bu su sax day laal ko soxna يدعون يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا بارك الله فيك يلا لبنى يا واسلم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه na nga muñ ànd ak ñi nga xam ne ñoom dañuy tudd yàlla bu nekk bëccëg te pourtant yonent bi yónni nañ Jibril mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Mouhamad boo bëggee yàlla def la buur nga nekk yonent maanaam da ngeen alal nekk buur am autorité ba pare nekk yonent wala mu def la jaamu yàlla bu sàpp ak yonent Jibril ne ko tànnal beneen mu tànn beneen nekk jaamu yàlla nekk bu suufee nekk koo xam ne daanaka addunaam bu fekkee alal doo ko gis ci moom bu fekkee taar taar lu dul jëmmam ndax yonent bi daanul xeeñ lu naqar xetam la daan ñaq yonent bi mësul ëppali mësul ëppali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ku ubbeeku si jaamu yàlla yi daan na fekk benn jaam boo xam ci la nekk bu ñëwee daal di koy dikkee ginnaaw daal di koy laxasaayu di foo moom naan ana kan moo ñëw ma jàng diw di bëri moom waaw ana sëriñ yi roy yonent bi yonent bi danaan dàqanteeg saxaaba yi course ban sëriñ boobu dàqanteeg ay saxaaba ay àndandoor amul yonent bi xare da xare da daan def ci kanam la daan nekk di waar gaa yi ci aljanna di leen fàttali safara ci kanam la daan nekk daanul toog këram naan gaa yi dem leen bu liggéey jotee gën a métti ci liggéey bi moo koy def xare xam bi ñuy gas tranché bi ma mag a coalisé dañoo ñëw jullit xeer boo xam ne dañoo dóor ba sonn ba nga ci dara bu doon man la tey ma am sëriñ xalaat ngeen ma dem sama sëriñ si ko kaay fajal ma xew sama téeméeri xel xalaat xeer boo xam ne di gas di tabax di xare di ak ñoom di bëre ba bare xif daan ko ray da daan genn guddi nak xif ma sa genn guddi xif mo ko genn mu ak abou bakr ak Omar ne la waaw yeen ñu génne ñu ne ko ñoom it xiif leen moo leen génn ci ñoo xam ne yow yalla ya la tan ba na la jox alaw man na la jox ay milliard ay yalla la la ko tànnee abdullah ko yalla tagge jaam alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi am as yonent saa saa yu ko yàlla di tagg jaam la koy tagg tey bi yaakaar naa ne seen sa boo ko waxoon jaam sa jaam serviteur d'Allah sax mel alors que yonent yàlla bi nga xam ne moom gën ci nit ñi jaam la ko yàlla tagg kon nag mbokk yi dañu delluwaat ci ay jàngal li may tëjee mooy képp koo xam ne bëgg nga say jaamu yàlla say jaamu yàlla yàlla nangu na méngoog ñaar benn bi mooy na ko yàlla digle bu ko yàlla diglee nga dellu ci yàlla yónni pour mu jàngale lislaam mu wan la naka lañ koy jëfee ndax yonentu yàlla Muhammad li tax yàlla andi ko ci kaw suuf mooy pour mu jàngal nit ñi naka la ñu jaamu yàlla li moo tax yàlla moo tax yàlla mooy ko toppee di ngeen ñun suñu déggalu bàkkaar ak bëgg bi ñuy bëgg ci topp ko xamal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum yàlla mu ne bu leen bëggee ma bëgg leen mu ne topp leen Muhammad ku nekk balaa ngay jaamu yàlla julli woor zikri loo mën a même pas-pas loo war a gëm gëm dellul xool nan la ko Muhammad gëmee woon nan la Muhammad daan jullee nan la Muhammad daan wooree nan la Muhammad daan aje mag nan la daan loolu mooy aar say jaamu yàlla ba boo dajee nga géeju kawsar nga am xëynaatul kawsar géej la boo xam ne yàlla da koo may yonent yàlla ma amoon jullit ñi yow ma xiyam fa la ñuy ñëw ku ci naan doo doo man am ay jullit ñoo xam dañuy ñëw di leen yonent bi di xàmmee mooy seen leeru jàpp-jàpp di nga naan ndox mi am naan laal booy jàpp-jàpp day nekk ay lumière ay leer bi ñuy ñëw malaaka yi garde kawsar daal di téye ñenn ñi ñu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi leen sama xel lañu bokk xanaa gisoo seen seen mandarga yi malaaka yi lan la ñu yoon bi saa sala dafa ne ko ñii dañoo xamoo lan la ñu def sa ginnaaw dañoo sopp sa diine sa kanam dañ doon jaamoo yàlla ñoo xam ne jàngale woo waaw nan la yàlla ci jëlee yoon yónne ko pour mu ci lislaam loo xam yoon bi buñ ko yeewoon tey këpp këpp du xam li ngay def lan lislaam mooy li fi yonent bi bàyyi ak ay saxaaba lépp lu war ak loolu bokkul ci lislaam lii laay tëjee dañu war maat lislaam bu ñu nangu ñu sabote suñu yënam ndax du ñu nangu ñu sabote suñu papa du ñu nangu ñu sabote suñuy baay du ñu nangu ñu sabote suñu sëriñ wax naa leen ko nit toog na fi ñaari yoon te ay njaalu xatal yonent yàlla Souleymane yonent yàlla Daawuda buñ ko waxoon ci ab sëriñ Sénégal Sénégal lay tàkk buñ ko waxoon ab sëriñ Sénégal Sénégal tàkk yonent yi ñoo gën boo rek sëriñ si nekk ci kaw yonent yi ñoo gën ci kaw ci nit ñi gannaaw yonent yi saxaaba yi àndoon ak yonent yi ñooñu ñoo gëm yonent bi sax sax dafa wax ci xadis mu ne xayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum mu ne ñi gën ci nit ñi mooy ñi ma jamono tel topp ci ñi topp sama maas mooy siècle bi ci topp topp ci xarnu bi ci topp beneen siècle bi ci topp mooy ak saxaaba jamono yonent bi sax saxaaba yi taabiin ak taabiin taabiin yi nga xam ne taabiin bi ñoo ne saxaaba taabiin mooy ñi topp ci saxaaba yi lii ñor yonent bi saasal nee na ñetti seeg yooyu ñoo gën ci doomu aadama ñooñu dañoo war a fexe xam nan lañ doon dundee tey fii mbooloo bi war naa laaj cinq mbër ñu jox ma tur mbër yëpp rapide cinq mbër Sénégal wala six ba dix nga laaj dix saxaaba bi doomu am boo ko amee benn lépp ngay am tan moo mën a si nekk bi dix saxaaba dix ku ko mën na yëkkati loxo dix saxaaba ñoo xam ne ñoo àndoon ak yonent bi yonent bi yàlla kan moo ko mën laaju ma leen li pour saboter leen pour wan leen la ñu toll ak dañoo war a jàng suñu parce que ñooñu ñoo yenu leeru alquran ak sunna di doxal moom ba tey ñu mën cee jot yonent bi lan la jàngale loo xam ne bu ci nit faatoo doo mucc lan lan la ne lii bu ko def boo faatoo doo mucc leneen loolu mën nga ko def bi nga yem ci bismillah waxal ci kaw bokkaale macha allah bokkaale yàlla mooy benn bakkaat boo xam ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqaa rabbih فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب تبارك وتعالى دمي وقت آية ريبتي صحبة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل بقالي جامو دي جاي جامو سفرم بقوة بقالي بقالي كان مو من جوح definition بقالي كان مو من définition lan mooy bokkaale que ñu nañ ni moom mooy dem jaamu ay lan mooy boole yàlla loolu bokkaale la mais ci tënk bokkaale yàlla mooy nga jël àq yàlla defal ko keneen ku dul yàlla tabaaraka taala mooy bokkaale. li nga xam ne misa masala wërsëg est-ce que nit moo yor wërsëgu nit kenn moo yor wërsëg ba yor wallahu huwa raziq moom turam daf ci bokk sax ar-razzaq mooy ki xam ne mooy wërsëgal la boo déggee nit ku naan diw moo ma wërsëgal nangam xamal ne moom mu ngi bokk ak ndax wërsëg ci yàlla kese lay dund dund ak dee yàlla koy joxe diw moo guddal samay fan wala diw yàlla nga guddal samay fan nit mënu ko ndax nit kooku sax day dee kenn lay guddal fan di joxe dund di joxe dee mooy allahu tabaraka wa taala ñaan kenn lañ koy def duñ ko ñaan duñu ñaan ki nga xam ne dafa faatu duñu ñaan di dund loo xam ne mënu ko mbokk mi toog ci moto bi mën naa ñëw ne ko grand mais ma cent franc boo amee cent franc mooy may mais ma toog ci ne ko dama bëgg liggéey bi ma am fee liggéey bi biñ ma war a jël fee nga defal ma ci affaire ba ñu jël ma grand bi lan la ci dañ lay jël ku ci bopp kenn la jël ñëw ci grand bi ne ko dama bëgg sama sama soxna mu am doom dama bëgg sama soxna am doom yàlla dafa ci alxuraan ne doom moom yàlla moo koy joxe nga gis ay nit fii ay sëriñ yoo dañuy toog ne leen dañ lay may doom te jigéen ñu bëri buñ fa demee lan la leen sëriñ yooyu def dañ leen di tëddee wallaahi parce que ndaw si di dem ci sëriñ bi day làq du wax waa këram li nga dem ci sëriñ bu demee sëriñ bi ne ko sama sama sama man yu mooy jaxasoo ak yow pour nga mën a am doon. allahu akbar jigéen ñu bëri fii noonu la ñu tëddee. te buñ demee duñ toog seen borom kër yi duñ toog ah, sax sax lan la wax ci jabarkat nee ne la war a mu ne boo fa demee rek 40 jours boo gën a yàlla daaw sa bopp. mu ne boo fa demee nag laaj ko mu wax la nga gëm mu ne weddi nga lislam nga li nga xam ne yàlla wàcc ci moom. télé yi ak rajo yi dañuy def publicité voyance. set gis-gis ak beneen xeet bi nga xam dafa làqatu ci lislaam mooy listixaar comme yonent bi dafa jàngale istixaar ñuy nax nit ñi naan lañ leen di lan lañ leen di listixaarale boo ñëwee ñu la jox ma sa papa sa yaay sa soxla ak sa tur ñu fanaanoo la yonent bi jàngalewul loolu yonent bi dafa ne boo bëggee dugg ci mbir mu am solo moo xam da ngaa bëgg tukki da ngaa bëgg a soxla da nga bëgg ubbi commerce da nga bëgg mbir xam amal soxla mu ne ñaari rak ñaari rak أنا بين نيان بوخام ني نيك في بين تيرا بو ني واخ لا سيتادير بي مسلمان حسن المسلم تيمر لاي دار دي طلبات نيان بي تي بير نيان بي غادي خمر يان لي يو جام بو دوي دي مام موي كي خام لب من لب تاي مو نو دار بو فكي لي غاي دوك عمل نالا نداري دينا لا تاني سا دين اك سا ادونا يالا مكو يوم دار يالا يو مي خام بو فكي لي دوما جاري داف ماي لور داخال مكو جوم مو لو گد لي لي موي استخاف نيوم ني وور دي ndax nit ñi di lekk seen alal naan dañ leen di listixaaral Sénégal yu bëri di ci dem di wallahi am na ay borom kër yoo xam ñu ngi yar ay wallahi alazim beneen bi mooy njabarkat bi boo ñëwee lan lay def yow lay njëkk a njabar pour mën a jël sa alal daa la waxee joxeel ba joxe bu nammee yàpp ne la andil dina dem ba sàcc loola ngay dem di jël alal di ko jox ñaata kaa lañ ci dégg ay nit ñoo xam ni ay alal lañ ay millions ñu daal di xëy découvrir ni la wax ñaata ñaata ngeen di dégg ci ay rajo yi ci teseeg yooyu ay jigéen di wax ni ay sëriñ ñoo leen tëddee parce que dem ci njabarkat fu mu mën a jugee du mës a texe njabarkat yéeféer la attem ci lislaam mooy rey attem ci lislaam mooy yi imaam yi xam nañ ko nañ ko wax nit ñi keroog ma toog police centrale dégg police quatrième dégg benn waay di wax ak beneen waay kenn ki imaam la keneen ki du imaam kenn ki naan waaw diw sax dañ ko doon dëppal imaam bi naan ko macha allah ah, diw ah. dañ ko doon dëppal imaam bi naan macha allah ndëpp oh. ay xërëm la man samay maam ay lébu lañ lépp ay xërëm la sama maam yi ci boppam ñoo ne ay xërëm la ay jinne ñoo fa nekk yoo xam ni buñ bëggee tukki wala ñu bëgg def dara wala takk soxna wala dara dañuy dem ci jinne yi buñ demee neexalee leen soit neexalee leen soow wala deret jox leen daal loo xam ne dañ koy def jëriñoo wala yàpp wala ñu togg ay ñam yóbbu ko ci tefes bi tuur ko wala ñu bàyyi ko yii ay mbiru sayaatin la l'islam jàngalewul lii l'islam li mu xam mooy jullit bu amee soxla day dellu ci yàlla mën a xoolal ñiy dem ci xam bi kër bi ñoo ëpp problème ñëpp su génnee këram boppam bu mettee sax mu jàpp ne am na lu ko jàpp ne am na ku ko njaboot. du dal du am dal ki am dal di am sécurité mooy ki nga xam ne dañ wéetal borom yàlla ne la képp koo xam ne doy loo na ma man yàlla dama lay doy sëkk. ku wéeru ci yàlla yàlla doole sëkk dañu delloo xol yi ci allahu tabaraka wa taala nañu jàng sunna yonent bi jàng la mu jàngale ci ay kaaraange yonent bi bu ñu jàngoon sunna ak ñooy hmm. ñooy noppalu dama leen di jox ay misaal yi wane dañoo war a noppalu ci topp sunna bu feebaree soit mu am jabet ñu dagg tànkam wala mu am cancer wala dara yonent bi jàngale la benn ñaan boo xam ne nee ku ko def الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفجيره يرنج من انا لولو قد الله اكبر سوري سو هو كرفك كيباي واي كنت في وجه ما جو حد بين اللسان ديك بو امي تي الله لا نجو داني باش بو لين توب سونو ني مو نوبالي داني باش يومي تيري ياي باش دنا اي نك توغو jënd ay kanet jox ñi ñuy naan di waxtaan te yow yaa nekk ci naqar ah. suñ la suñ la nee boo deelee bu fekkee yoo am dëj say dëkkandoo ñoo la war a toggal ñoo la war a toppatoo waaw lii gënul noppale gars yi dama leen di laaj ndax lii gënul noppale yow amee dee di toggal nit ñi ñuy noos di leen baasal lii mooy l'islam bi am Sénégal te boo ko waxee ñu jàpp ne da fekk du loolu noppal lañ leen bëggal ma joxal leen beneen misaal tam xarit yonentu yàlla bi lan la fa jàngale war, kese la fa jàngale woor woor la yonentu bi jàngale boo wooree ñu déggal la ñaari atu bàkkaar nga gis sénégalais kuy koo xam dañ ne ko ba su tam xarit daa war a wér di mille lixlaas mille mille lixlaas boo koy pare mille lixlaas boo ko wér di suba ba ba xanaa ci ngay ne di di di ko mu ne leen lan moo waral seen woor bi ñu ne ko bés mooy bés bi nga xam ne yàlla ci la muccale woon Moussa ci Firawna na bi sallallahu alayhi la sallam ne leen man maa leen gën a yey ci mbuusaan dinaa woor at bi dina woor ñaari fan neuvième bi ak dixième bi pour pour uuteeg juif yi loolu la ñaar la donc gis ngeen li gën a noppale maa nga woor ñu jéggal la ñaari at lu ëpp ci nit ñi duñu woor bal dañuy def ay yeneen mbir beneen bi gën a garaaw ñu créé benn comité boo xam ni dañ ko tuddee ànd sàmm di koy waxuma seen tur sama saboter ñuy xeex lan góor jigéen ak ñu bon ci dëkk li waaw bésu tamxarit lan mooy xew ay góor ñooy solu comme ay jigéen ay jigéen solu comme ay góor kenn du wax te loolu ay jëfi góor jigéen la tey bu ma soloon mini ci di dox ci benn bi léegi ñu ne xoolal góor jigéen bi boo deful naa ne sax ñu dóor ma ay xeex waaye bésu tamxarit ñun solu góor jigéen lañuy lañuy yàlla ci wala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا آه. تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أكبر بنا بموي أيوة يبقى وقت ma ne bésu Tamxarit Sénégal dañu am comité boo xam ni dañuy xeex góor jigéen sénégalais def nañ ci ay marche pour ñu bañ a daggalal ay loi góor jigéen ànd ak loolu sénégalais yi bésu dañuy jëf ay jëfi góor jigéen te duñ ci bàyyi mooy góor ñi dañuy sol ay yëre jigéen jigéen ñi sol ay yëre góor yonent bi saa salaam ne yàlla rëbb na bépp góor buy jigéen jigéen lu rëbb na bépp jigéen buy jigéen ci biir góor góor lu est-ce que dégg ngeen kenn koo dañuy xeex góor jigéen gis ngeen logique bu Sénégal est-ce que gis ngeen logique islam bu Sénégal il faut ñu xoolaat lan la yonent bi jàngale bu ñu ko defee noppal mën naa leen jox ay détails yu bëri ngénte ma jox leen exemple bésu ngénte bésu loolu la bésu sant yàlla parce que yàlla dana wërsëgal doom yàlla dana wërsëgal doom ku yàlla wërsëgal doom lay wax alhamdulillah daal di koy defee ni ko yàlla bëggee lan la ñu def dañuy wut ay chaîne à musique teg musique bi kàppar loolu mooy sant yàlla it's the rôle mooy sant yàlla yow kay la moindre des choses boo amoon mooy def nga teg alquran sante ko yàlla ci wërsëg bi mu la wërsëgal njaboot waaye yow bés boobu nga ci mooy yàlla tabaraka wa taala ma lakum la tarjuna lillahi waqara allahu akbar وقد خلقكم أطوارا الله أكبر ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات الله أكبر الله أكبر وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا الله أكبر ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله أكبر بقي القرآن نحن والله بنو خمر لي الله يبقى القرآن mbokk yi yàlla dafa ñu bëggal baax mbokk yi nañu delloo suñu xol yi ci yàlla tabaaraka wa taala ngir ñoo am dund bu dal mbokk yi nañu delloo suñu xol yi ci yàlla ngir ñoo am dund bu féex wallahi li ñuy dund musiba la musiba nekkul reyante dóorante ay bal waaye musiba mu ngi tàmbalee ci du mooyu yàlla yàlla defal la dund bu xatte yëpp yëpp xool leen suñu problème yëpp ñu ngi ko delloo ñun ci ay mbir politique mais nañu xoolal nit ñi dundee nañu xoolaat ni ñuy jëfee ak suñu lislaam mbokk yi ku nekk na xoolaat li mu diggeeg yàlla bi ngay wax ashhadu an laa ilaha illa allah mooy da ngaa seede yàlla rek moo war a nekk sa buur moo war a nekk sa yàlla daf ñoo doy buur ak borom xool suñu ay jëflante xool leen njabarante bi mu bëri ci société boo demee ci entreprise yi dañuy njabarante nga dem ci kër yi wujj yi dañuy njabarante jigéen ñi dañuy njabarante nga dem ci footballukaay yi dañuy njabarante nga ci fa fa ñuy basketeer dañuy jabar partout dof yi nga gis Sénégal yëpp jabar mo lañ ko def la plupart du temps ci ay nit ñoo xam ñene ñooy julli subhanallah mbokk yi nañu dellu ci l'islam ñun de wallahi woote wut ci dara loolu la ilaha illallah muhammadu rasulullah parce que li moom mo ñu may mucc képp ko xam ne bëgg na texe fi ci aduna ak àllaaxira aduna nga am dërëm nga wër nga feebar li lay may dalu aduna ak dalu xol moy top alquran يبل سخول بي الله yàlla محمد Muhammad bay anibu ila rabbikum wa aslimu la nañ leen jëbbalu yàlla tabaraka wa taala beneen bi mooy li mbokk bi tudd léegi mooy anibu anibu ila rabbikum wa aslimu la bu ñu waxee ku ni wax alquran la alquran faatiha ba naas jébbalu yi fay fekk yëpp nit mooy jébbalu ci yàlla amul benn yonent bi sax te du jébbalu ci moom yonent bi li amoon mooy dañuy jaayante ak jaayante ngay dugg ci lislam jaayante ak moom ci ay charte du ma jaaloo du ma def nangam ay conditions mais jébbalu kenn rek lañ koy defal mooy allahu tabaraka bi ko yàlla di wax waa bismillah ku dul yàlla a borom keneen ku dul jébbalu tamit nga am ci moom liggéey bi taxaw jébbalu waaye jébbalu yàlla kese lañ ko war a def ku dul yàlla moom kenn warut a jébbalu kenn. wax lii la alxuraan wax kenn warul jébbalu ci kenn ku dul yàlla ku am benn aaya boo xam ne wala xadis nit jébbalu na ci moroomu nitam na ma ko àndal ma àndal moom dëgg dëgg incha kër bi daa mel ni macha allah fekkoon naa la fi macha allah yal na yàlla yàggale. amiin amiin ndax lii moom dara jëlu ko. tey place bii ñu mooy place de la bi. macha allah manifestation bu nekk fi am. Mhm. mais bii nga fi def moom vraiment man ci koñ bi laa def. mais pratiquement li ma def gis bëriwul. macha allah islam la. kon jaajëf yal na yàlla saxal lañ. amiin mais ñaari laaj bi ci jëkk mooy dama dégg nga ni nit kenn du ko ñaan. aywa euh, nga ni nit bu amee problème mu am doom. yàlla nga ko war a ñaan effectivement ñëpp dëppoo nañu mais nag boo toogee naan yàlla may ma doom may ma doom ndax di nga am doom il faut nga jug dem a am doom benn ko beneen laaj bi mooy ndax fii ci Sénégal réew mi ñu nekk nii. ma tontu benn bopp <laughs> damay mel ni fàtte quoi dem ci gynécologue bi ñaan dem ci gynécologue ay jur du la yooyu def ay effort pour xool sa wàllu santé te loolu islam da koo dagal mais li ñuy wax ñaan mooy ma toog tey Serigne Diouf maa ngi lay ñaan nga defal ma doom. loolu la ñuy wax yàlla rek lañ koy defal ndax ñaan yonent bi saasam dafa ne mooy yuqu jaamu yàlla ñaan mooy l'essence même de l'adoration boo la xoolee jaamu yàlla yëpp presque ay ñaan yëpp presque lépp ay ñaan la a màkk lu ci bëri ay ba pare ay ñaan war na jaamu yàlla ci jëmmi boppam ci alquran Ibrahim bi mu bëggee dafa ñaan yàlla rabbi habli min as-salihin pourtant Ibrahima yonent la amoon na ay médecin amoon na ay nanga mais yàlla la delloo ñaan donc ñaan kenn rek lañ koy defal mooy allahu tabaraka wa taala moroomum sa moroom bi ndéef laa defal loo xam ne yàlla rek moo ko mën nit nag mën nga koo ñaan lu mu am jox la ko may ma saabara mu am ko mu am la jox la taxawuma ci nangam bu taxawale ci nangam loo xam ne mën na ko mais loo xam ne yàlla rek moo ko jagoon loolu dañ koy delloo ci yàlla kes kes loolu mooy tontu bu njëkk bi ñaareel bi aywa maa ngi delluwaat di nuyu mbooloo wa rahmatulah ñaareelu laaj sama dégg sànq nga ni jébbalu ci yàlla lañ koy def jébbalu ci yàlla rek lañ koy def effectivement loolu moom yaakaar naa ne képp ku gëm nekk sa xol mhm. ñu bari dëppoo nañu ci mais est ce que jàppoo li fii ci Sénégal li am ci Sénégal du uh-huh. jébbalu parce que wolof peut être baat bi noonu la ko mën a pour nit ñi comprendre mais jaayante la parce que yow mii tey mën naa ñëw jaayanteeg yow ndax lii ngay wax fii ne man xaw ma uh-huh. tey mën naa ñëw ne damaa bëgg a jaayanteeg yow. waaw uh-huh. bi nga tegu woon ba am lii ma jëm fa tegu ma ne aussi am lii nga am. macha allah j'espère li am fii Sénégal bu jéblu ndax man tey bu ma demee Serigne di ko dama bëgg jëm jéblu ci yow façon waxin la ndax wolof peut-être xëy na baat boobu lañ gën a miin. Uh-huh. mais baatu jaayante la Serigne di yow yoon bi nga tegoon ba yegg jaamu yàlla ci maqaama ci daraja damaa bëgg la war a demee. macha allah mooy yow mi taxaw ci situation boo taxawoon lay wax jaayante wala jëbbalu. jaayante laay wax. na. donc olof am na ñaari baat yëpp am na jaayante am na jëmbur. moo tax man la ñun dañoo dese dégg làkk wi. aywa macha allah ñoo dese dégg wolof. kon bu fekkee yow nga dégg nit ñi la dem naa jébbu. waaw. loolu wax wax ci dafa xaraam. waaw mais da ngay dées vérifier xolam lan moo ci nekk. waaw léegi jaayante la war a jébbu. même bu fekkoon jaayante nañu nañu am bu rafet sax ah. même bu ci l'islam amirul muminin lañ koy defal maanaam ki nga xam ne moo jiite jullit ñi teg ko ci kitaab ak sunna loolu islam jàngale ci hadis maanaam koo xam ne moo nekk tey bu ñu ko doon président buy attewoo ca tribunal ba alxuraan ak sunna yonent bi kooku rek la ñuy jaayante ku xam beneen jaayante na ma ko xaw ma man beneen jaayante amul ci lislaam keneen ku ñuy jaayanteel ku dul ki nga xam ne dafa jiite nit ñi teg ko ci alxuraan ak sunna waaw mais man damay xam nga boo amul satisfaction mooy da war a andi lii wone ni amoo satisfaction Uh-huh. mooy amirul mu'minin nga wax. waaw fii ci Sénégal kan moo fi amirul mu'minin. non Sénégal jaayante mënu fee am xam nga lu tax parce que amuñu amirul mu'minin. déedéet kan lay amirul mu'minin. ñii ñuy taxaw ñun ñuy taxaw yëpp amir nga yor. déedéet <laughs> déedéet non amir foofu liñ ci jublu amir foofu liñ ci jublu mooy comme Aboubacar Omar ñi jiite moo leen xeetu l'islam loolu lañ ci jublu maanaam même boo delloo ci xadis yi loolu nga ci fekk doo fekk benn jaayante ci xadis yi ku ko am mën naa ko réeré ah ku ko am na ma ko andi. ci xadis kenn boo xam ne nit ñëw na jaayante nit fekk nekkul njiitu jullit ñi amul njiit buñ ko waxee mooy kanam dafa jiite umma islamique jiite bi tege ci alquran ak sunna bokkul jiite boo xam ne maa ngi dañoo ànd lislaam ne la ñett bu ñu àndee na kenn ki nekk jiit bokkul ak jiit boobu donc jëbb bu dee baatu jëbbalu nag boo ñëwee ci alquran ay aay yu bëri yàlla li muy wax ci jëbbalu mooy jëbbalu leen yàlla jëbbalu leen yàlla Suleymaan bi mu Balqis ñoom ñaar dañoo ànd jëbbalul yàlla tabaaraka taala doo fekk fenn ku ko am na ma ko àndi te léegi débat damay wax Sénégal nañu bàyyi fanatisme am nga luy fanatisme mooy mer ci loo xam ni jàpp nga nit ki dana laal déedéet man boo ma laalee damay jéem a teggi li ngay wax ci xam-xam mais du ko teggi ci xët-xët tey boo ñëwee ma li nga gëm du nii dama naan la kaay man li ma gëm fii laa ko teg alquran lii la wax yonent bi lii bu dee li may wax du noonu nga teggi ko andil leneen luy wane li may wax du noonu mais du saaga moo koy réglé du dóor du xas loolu amul njëriñ. Oh. ñun ay mbokk julli lañ. dañu war a waxtaan yonent bi saa dafa ne ak diinu nasiha mu ne diine layal ca diin tey yow miy wooteewu benn kër lan moo ñuy àtte alquran na fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah yàlla bu ngeen ci dara dem leen ci yàlla alquran mu àtte leen ak sunna dafa dafa saf yow da ngay jullee nii may jullee nii ngay jullee foo ko jàngee nga ne ma yonent bi ma woon ma xadis yow ni ngay jullee foo ko jàngee ma ne la yonent nga ne ma woon lii ngay wax foo ko dégg nga ne yow laa ko wax woon ma aay wala ko problème bi rek la ko defoon problème bi rek la kenn du xuloo kenn du xiiroo kenn du ñaari ومن أحسن قولا من الله وهو محسن ما شاء ki gën a rafet wax mooy borom bi tabaaraka taala nañu dellu ci téere yàlla bi ñu la ñamal ñu leen di fàttali ci wàll bu njëkk bi am nañ beneen wàll nag boo xam ne dafa concerné chrétien yi képp koo xam ne am na question ci li ñu wax nii balaa ñu tëj bu bëggee laaj la laaj bu amul incha allah ñu tëj bismillah Euh, sang bi wax ñu rafet na trop tey lépp tegu na ci lislaam mais dafa am loo xam ne ñun ñi nga xam ne dafa nekk ci Sénégal euh, man na maa cité lu mel ni euh, Serigne Touba exemple tey ma ñëwoon Serigne wala ko mel ni moom tu fi ñëw dégg ko sama loxo ji ma ñëw dégg ko sama loxo jébbulu ci moom moom leer na ko ni li na ci man xam na ko moom mi ma jébbulu li ci moom xam na ko parce que leer na ko ni yàlla laa gis ci moom ba tax ma ñëw ci moom jébal ko sama bopp moom itam du ma woon mukk ko damay won yàlla tegtal ma sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne si dama ci mën sukkandikoo dinaa mën a am tax ak àdduna am tax ak àllaaxira yaa ngi dégg mais nag boo fekkee ne da naan jébbalu jébbalu jébbalu lu ni nga ko mën a waxee ci ñi koy mën a dégg ak ñi ko mënul dégg a jébbalu yàlla la ko war a defal ba ci baatu sujjóot am na yoo xam ne boo nee sujjóot danaa waroo sujjóotal sa borom jàmm doomu aadama mais yow mi jóg ñëw sujjóotal nit ki leer na ko joxoo ko gëdd suñu borom mais jox ko ko waroon ko te sujjóot bi nga xam ne moom la islam sa taag mooy nga sëgg sa jë sa bëti woom loxo sa lépp nga sujjóotal suñu borom subhanahu ñun nag dama nekk ay ndaw réew na loo xam si daf ku nekk xam nga li nga xam ne moo baax kenn ku nekk xam nga li nga xam ne moo baax li ngay def nii nag jamono bu dee ba am fu mu nga bay fi di yepp ñew leen taxaw ngir islaam loolu dañ koy lu yepp ko bëgg baax da koy defal lu waaye nak dafa am lo xamne bu ko nekké ni comme ni nga sànq do expliquer lolu ba at nay tukki dafay nekk te it am na lo xamne demul ci ab ben sëriñ di lu te bambel la ngir mom la ñaanal barkeel nañu sànq te mom ngir su boobu defal nako yalla taxé addu ndax yalla kat fi ne nii boo amoon xel tay jii am na koo xam ne si jantub ko neexal Macky Sall ma nga neexal ko ci bon li nga si jant tay boo dul gis sa xar man na am doko gis lol nak la suñu borom la ay sun borom ay escalier la ba kenn ñu ag ca kaw kon nak yalla la yalla defal jàmm ag suñu yéen. léegi ben laaj rek la lay laaj ma tek ben laaj est-ce que Serigne Touba amna fenn fu mu jangale ni nako nit ñew jëbulu boko amé amee mën nga ko jox ci ben xasin waaw waaw Serigne Touba fan la ko waxee. te kii la laaj kii la laaj kii laa la laa laaj kii moo dugg si. අදටද අදවන්න මම වෙන්න ලොසියක් අදටයෝ අදවල් ලං ටිකේ නෝ දවල් ලං ටිකයි බයි මුයෝ මොමෝ දෙල් ටිකේ බයිර අදවල් ලං දමන දමන දමන ඉස්සෙල් ඉස්සෙල් තුබා බාතු අස්ලම් අස්ලම් dama ne aslam daf ko jàngal kenn ne nañ ko ko defal moom wala ñu ko defal loolu laa yow laa ko lay xamoo ko te boo xam nga ne xaw ma ñu jàll xamoo yow xam nga benn benn bu Sëriñ Tuubaa nañ ko jébbal suñu bopp te waxul nañ ko jébbal yàlla waaw non kii rek laa soxla waxuma yow jox ma kii bi rek jox ma bay jokkoo micro bi rek. boo leen bëggee waxtaan bi ne lenn nafsi lu muy tekki. aslamtu aslamtu non dama ne sëñ Tuubaa dafa ne aslamtu nafsi kan la jébal boppam. yàlla boromam allahu tabaaraka wa taala. boo delloo ci masaalikul jinaan ci tàmbale bindam mu ngi jéggalu yàlla di ñaanal ay sëriñam donc sëriñ Tuubaa boo xoolee ci ay bindam yëpp jébbalu mu ngi koy delloo ci allahu tabaaraka wa taala. même waat ci même waat ci moom bu ñu waxtaanee bañ a a xolo ñu waxtaan ci dal même waat ci keneen ku yàlla sëriñ bi jàngale wu. sëriñ bi waat ci yàlla la jàngale bi amee jafe-jafe ci tubaab yi yàlla la dellu. won leen kéemtaanu yàlla waaye delluwul ci jëmmam bi comprendre nga donc man dama ne li may wax c'est très simple ah, ko du suñu maam waaw maa ngi lay si sa gars yi sama jërëjëf yàlla fay leen jërëjëf waaw léegi léegi kuy ndamoo Serigne Touba àndal ni Serigne Touba bul naan sangara bul am jël gars yi wax yëpp xam bul am jël da dem waxtu bi di woor di jayanteeg sa borom tey ju fi baax